mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay ma kii eh, bu fen di problème na ma jeex na. maa bu doon bëree sama rakk la sama frère la fair play mu jeex. yaa war ma mu daw moom mi daw kay lu ma yeewee askan rek ma ma. ma ma dugal si kii rek mbalaan bi rek dafa doon ñëw maagale ko mbalaan bi rek. waaw dafa war a yeewee askan bi ñëw na ma yaa ma daan jëlal yaa na la ndam la jéeg waaw man tamit si li mu jëm rek ma ñaanal ko loolu la ko waaw moom moo war a yeewee askan bi. balaa ma soo rek lii maa ngi koy doon mbër bu ni kaay bëriwaat nga ni bëreewu ma daf may rey. non mosuma ko gis non bëreewu daf may rey. non bu dugg si loolu de dag may rey man dinaa ne dag may rey yow loolu yow dinaa ne dag may rey la mooy rey may rey non xalaatuma ko wax. non non waxuma lool de parce que Serigne Touba waxuma lool. nee na sonn naa mënatuma dara pare naa si làmb ji. su ma waxee loolu combat bu ma jël nañ ma daan parce que Serigne Touba. non non non non wax loolu yow non non kii bu ma ñëwaatoon bi day gën a reyaat parce que Serigne Touba. kaay réglé lii waaye maa maa maa lu may réglé fii mu ni laay ba pare xaaral réglé xaalis bi ba pare. <laughs> <laughs> la na petit nag moom jël na drapeau bi sax dee sax yóbbu ko Ngor yóbbu ko Cité kon xam nga petit moom joxe na victoire <laughs> petit joxe na victoire xam nga drapeau bi moom dama ni woon la ma digaale woon dama ko doon may de barki alxuraan su ma ko jëloon sax dama ko doon may moo tax waxuma wax sa drapeau bu ma ko jëloon sax dama ko doon may drapeau bi dangaa waxoon ni Cité bu Ngor daan na la kan non waxuma ko woon de waxuma ko woon foofu de non waxuma ko woon nga ne kan moo ko buuxaat moom mu ngi doon ñibbi mais ay ndigam ñoo ko buuxaat rek ñoo ko buuxaat waaw moo tax mu ne làmb bu tojee kenn warul taxaw si digg géew bi mais yow arbitre bi ni mu def yow nan nga ko gis arbitre bi dafa juum rek nit ñëppaay juum arbitre bi dafa juum rek waaw loolu moom dafa juum moom. mais le fait que ne la kaay bërewaat est ce que yow jarul woon yow nga ñëw bërewaat combat bi pour mën gën a mën a rafetal. foofu foofu bëre xajaatu fa su bëre woon rek dañ ma yaaj. xam nga rek. CNG dama bëre woon. acca ba tey Lamina euh, gis nañ Siteu bu Ngor ak ki nga xamante ne moom mooy Bébé Bismi kon li ñuy wax rek làmb abu day boole mais mënul xaajale la preuve en est ñoom waxtaan nañ kaf reetaan Siteu bu Ngor sans plus tarder rek ñu ngi bu waaw ñu lay fay kay Fatma waaw di sant yàlla julli si yéenante bi kay sant suñu ñaari waajur waaw rawatina Ngor Diof Waxam Almadi Tarawo ñëpp waaw samay supporters yëpp keñ bilaay taw feex keñ waaw. mais lu ñu naan xam nga dafa naturel quoi xam nga dañoo sant ma rek. Ah. xam nga ñu xaw ñu bëgg a waxtaan tuuti rek ci làmb bi passé ni mu demee ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi du leen du doon làmb rek nekk ay xale waaw bis mobilise ba mobiliser ñi bëri bi yëpp mobiliser waaw yomb loolu bu doon Iba Mar dañuy tej bunt yi comprendre nga waaw mu mobilise ma mobiliser waaw amateur yëpp daw wuyu si nañu waaw làmb ji loolu laa ko jàngatee ñu bëri fulla ak fayda waaw wan ak njàmbaar ak jom quoi waaw. ñu gis pour une première fois nga génn ah, voyager préparer combat. waaw loolu samay kilifa rek la woon ñoo ne ma da ngay dem man a man ma dem suñ ne ma waar suba da ngay dem suba damay demaat amaana ñu ngi si tànk yi waaw kon ñoom rek laay déglu waaw ñoom rek laay déglu comme ba fëgg la xam na moo ñu fi xaw a sax mais ñoom laay déglu quoi. ñu gis ni ba nga ñëwee ñu bari sa adversaire bi nga doon bëreel ñu la doon tooñ naan ay lex nga dafa indi masse bu baax yokk poids changé lan moo taxoon loolu bébé bismi moo ko euh, jaroon wala. waaw demeewul kon cadre la bébé bismi sax waaw du côté yooyu quoi parce que bu ñu jugee si ñun suñu programme dañ ko teg bu ñu jugee si bébé bismi si liñ jëm te si liñ jëm noonu foog ñu yokk doole bi yokk masse bi yokk condition bi lépp loolu moo waral làmb ji xam nga ñu liggéey si bu baax a baax ànd see suñuy kilifa ñëpp ñu liggéey si lu doy waar. waaw amaana biñ ñibbisee poids bi bareyoon na trop samay kilifa xool ma jàngataat adversaire bi nag ñu xam ne adversaire bi ni poids bi bu baree du baax parce que moom bërëm soo amee poids rek day bëre sa kaw day bëtt day kal te day dëba naax bu la dëbee naax du kottu sa tànk bi nga jiite beneen tànk bi lay kotti waaw te loolu boo amee poids rek boo añeeree da ngay tëdd waaw loolu moo waral ñu physique si entraînement si kal ñi kanam a kal ma andeet def ma anière ràccaat samay tànk mu dañ su ma amoon poids rek problème bi fa lay tàmbalee quoi mu ñëwaat kalaat ma léegi bu may kalaat noonu léegi parce que njool la quoi samay nit ne samay kosut xam nga rek teñu ma si biir nekk jàngat ko jàngataat ko teg écran seetaan ko ne bul nangu mbër mi jàppale ñaari ngembaam bu mu ñaari loxo bu mu téye sa ngemb parce que ñaari loxo bu téye sa ngemb da lay xëcc te da lay taf te moo ñu sut moo ñu opéré noos loxo a jot car eh, macha allah quoi cëram moo ñu gën a jot suñu ay cër eh, ñu ne bul nangu mu taf la te bul nangu bëreek moom boppam di nekk si suuf loolu moo waral benn instant mu ngi dëgal boppam mais ñu ngi koy jéem ñu ngi koy ñu ngi koy dindi boppam pour jéem ko boole ko waat quoi parce que moom mbër la champion la eh, te car macha allah loxoy bind bi dafa jot te ku bind am jot rek bul ko may mu sëq sa ñaari ñaari loxoom sa ngemb quoi su boobaa bu la tafee rek da lay mën a kal ñu ñëw xañ ko loolu xam na ne buñ ko ko xajee rek ñoo ko man eh, bis bi moom nu mu mënti woon def daal day daanu. day daanu waaw làmb làmb dañ koy bëri avant ba ngay ñëw. kon da ngaa bëri combat bi avant ngay ñëw. bar Serigne lu leer nañ. moo gars yi lu leer si bi lii la ak lii. Uh-huh. moo tax bu sooy bu loon bëri fukki jéel sax bilaa dama koy daan. bëgguma di waat sa ay làmb nag. mais bilaa mu koy daan. Uh-huh. bilaa beneen facette facette bi nekkul ci mbooloo bi kese mooy ci sa koom ci say làmb ba ñëpp ne Siteu bu Ngor dafa mën a bëre est-ce que loolu noonu chute boobu noonu ba muy ñëw da ko doon euh, ba bis bi da gis ba muy déclenché. waaw ñun dañoo génnoon waaw xam nga dañoo génnoon dëgg bi ne xale ba léegi ñu ngi takk ay gants di xeex dañoo génnoon am lu jànge yeah ñu ñëw combat bi bi ñu koy soog a jël ñun bi ñu jël combat bi bi ñu koy signé dañ ne dañuy jël décision pour xeex ak moom parce que bu dee xeex daaxuñu quoi. Eh, ñu waaj waaj waaj ba jàngataat ko si communication am ni muy waxee samay adversaire xam na ne kii day xeexse te bu xeexsee yow boo indee xeex rek mën na bàyyi xeex bi daw ut se bëre bi ñu ne ma say loxo téye ko bu mu jox même buy ñëw di la song sax ah. <laughs> samay kilifa ne ma même moom buy ñëw sax sa loxo ya booy xeex xeexal benn loxo bul xeexee ñaari loxo parce que njool la waa boo xeexee gauche droite bu sëkkee say tànk rek balaa ngay xalaat mu daal daan na la ba jéegi la yooyu moo tax ñu ne xeexal benn loxo bul ñëw nag bu la jegeñee sa loxo bu mu jox mais bu dee daf la sore bëgg la dàqee are are are yow jamal di andiar rek mais bul jam sa ñaari loxo yooyu moo tax moom bi muy ñëw ñu gën ko yombal ñëw bi. waaw engagé boobu noonu mënu si woon ñaax parce que lu ñu waajoon la xam nga rek. parce que moom xam na ne noonu lay ñëwee lu ñu sant mooy fexeel encaissé boo encaissé moom buy dóor si la condition am di demee xam na ne lépp premier song bi la woon te bu ñu demoon deuxième song waat bu boobaa làmba ji man maay dirigé. Eh, parce que dañ ko waaj quoi. waaw kon ni ko waxee ah. jël am léegi ñu ne action bi euh, da nga koo def euh, euh, nu mu tudd dafa àgg dafa eggee ci ginnaaw saako yi ñoo loolu du jël Siteu bu Ngor ñu ne ko kaay bëre. nga ni doo bëre lan moo tax arbitre bi puisque c'est le maître du terrain bien vrai que ni jël am na jël am na loolu moom on l'a disconvié même pas mais puisque arbitre moom moo la woowaat ne la kaay bëriwaat lan moo tax si tëb ngor bëriwaat. waaw li tax bëriwaat foofu bëri mënatu fa amaat. waaw du ma ne arbitre bi dafa def lu ko parce que arbitre central bi sax moom daw na na jéena mais arbitre bi toogoon si moo ñëw na ko jéel bi amul. parce que waaw xaw ma nag parce que maa ngi koy soo a gis. maa ngi soog a gis lii nii si làmb Moustapha Gueye sax wax na ko nee bi mu daawee bëri ba léegi mu ngi soog gis lu mel nii kon loolu noonu arbitre bu ma joxul victoire sax àdduna jox nañ man victoire waaw bis mi moo waroon ñëw rek moom mu yeewi askan bi xam nga mu ñëw taxaw ne mbër daan nga ma yaa na lan dam li jig man bu ma ko defoon boog man noonu laa koy def moom bu doon moo ma def lii nii damay nangu dogal quoi xam na tey du bësu woon am li tax foofu rek condition laa joxe kee ngi xëcc fii kee ngi xëcc fii comprendre nga foofu bëre mënatu fa amaat te man bu ma bëre woon rek fii ma ko mën a teg mooy dañ may aj mooy lu xamante ne dama toog ay mois di si waxtaan ak samay supporters bi may nekkee voyage sax lépp samay supporters ñu ngi si réunion mooy lan siège yi stade bi siège yi stade bi comprendre nga moo tax man ne la foofu bëre mënatu fa amaat voilà loolu laa doon daw parce que lu tax loolu laa doon daw parce que yow su ma àndoon ak yow sax mu demee noonu sax sa xool dina tàng ba doo àndatee sa xale yi dañoo war ñu ngi yàq siis rek ngay dégg comprendre nga bu boobaa ma tey ma yi ñoom ak xale yi koy mujjee ta loolu laa daw comprendre nga am na lu xamante ne da koy xool ku nekk na ko xoolee boppam rek ku nekk bu ko xoolee boppam rek doo sonn waaw parce que samay supporter samay supporter man xam naa liñ capable bu baax ñu man ñoom xam naa liñ capable bu baax a baax waaw kon li ma doon bañ mooy ñu yàq ay siis comprendre nga moo waral foofu noonu ñëw demuñu ñibbi nag taxaw nañ si géew bi ñii di werante fii ñii di werante fii ba arbitre bi dem yoonam ñu soog a dem suñu yoon comprendre nga mais lépp sant yàlla la quoi waaw. léegi euh, na ñu ne léegi combat bi daanoo kii daan loolu noonu a ah, loolu moom fi laa ko yëgee sama ménageur waxuma dara uh-huh. waaw nee na ma daal ma xaar fee mardi dugal nañ affaire yëpp waaw dugal nañ lépp. waaw dugal nañ lépp mais loolu moom ma si dara. premier loolu moom mënu ma si wax parce que xaw ma si dara fi laa ko yëgee. amaana suñ jéegantee mu leeralal ma rek mm. ma soog si mën a wax. Mm. waaw ñoom buñ ko defee tamit du tee ñu topp ñu topp ko quoi parce que làmba ji ñu dañ seen ay millions de war na sëñ Tuba côté yëpp nag waaw amaana liñ fere si billet yi sax moo gën a tuuti si leneen beneen côté bi parce que waxoon naa ko ma ne ko bu may ñëw man làmba laay ma si bàyyi dara te ay millions lañ si def. barki Serigne Touba ay million million lañ si def ye buñ ko doon calculer laa billaay wallaay taalaay mbër bëri na ba bàyyi te ma def si làmb waaw ah? c'est confirmé c'est waaw ay millions lañ si def quoi. c'est loolu. waaw taw feex rek sant yàlla ba léegi mënu mënuma si débat keñ. waaw man keñ si droit ndax di daan kilifa. mais ñaata nga investir ci combat bi. barki Serigne Touba bare na. billaay wallaay taalaay combat bi mu taxee ba léeg ñun ñun ñoo def si làmba ji mais làmba ji deful si ñun waaw ma ne ay millions laa si def ah, barki Serigne Touba Mbacke ay millions yi millions lañ si def billaay wallaay taalaay ay million parce que ñun suñuy nit dañuy jàppale dañuy jàppale bu baax a baax yee amaana suñu mbooloo tamit bare lool waaw ba man bi may génn ngoor sax damaa jàpp ne kaar yi demagul te kaar yëpp dem na liggéey ak mbooloo mi des foofu am na ñu xam ne dañoo doxee ngor ba esaat barki Serigne Touba Mbaak dañoo doxee ngor ba esaat yee mu doon événement quoi te suñuy làmba yi si kanam mooy gën a doon événement. man waaw Siteu laa tuddee sama bopp lu rafet. ñu ngi déggante kañ woo na ma avant làmba ji rek woo ñu waxtaan mu teg ma si kot nii ak nii bëreel nii ak nii combat yi nekk sa ginnaaw combat bi mënu ko gën a mënul gën a lii. combat bu metti nga jëm te combat bu la àdduna war a xamee nga jëm te li mu wax dëgg la làmba ji la ma àdduna waroon xamee waaw te làmba ji la ma waaw la ma waroon xamee loolu la ma wax ñëwal indi fulla ak fayda man tey ma ñëw indi fulla ak fayda rek ak jàmbaar quoi si. gannaaw bañ kasee verdict bi am nga dañ laa jox li nga xam te ne moom mooy avance su bër est-ce que mën nañoo wax ne fii nii nga toog lekk nga avance. non loolu moom ba léegi man ma si wax. <laughs> mais si te jël nga avance ñu feetu suñu victoire rek. instant bi moom da nga jël avance bu jigéen yi jël nga avance. du jigéen sax xam nga rek dama am ay mbokk quoi. te woowuma leen ku si nekk na jël naa avance naa am nangam ak nangam. wala bu ñun may doxal mbër ak mbër xam nga rek buñ ko degee si lii nii may wax nii te ñoom waxaguma leen ko te li jiitu seen nopp rek bu boobaa xam nga rek ni ku nekk fi muy gisee quoi. moo tax damaa bëgg a woo ku si nekk ba pare rek. soog voilà soog jëlaguma avance bi sax. non ban mbër mbër mi mbër su làmba la nekk rek. Ah. waaw mbër mbër mu mag de mbër bu la jël ci làmb la jël. waaw parce que non dañoo bëgg a si kaw bu la neexee mën dañoo bëgg a yegg kaw. parce que dañoo bokk si làmb. Ah, waaw kii sa patron waa làmb la. <laughs> waaw moom mooy king bi. mu ah? <laughs> bu mooy king bi war sëñ Bamba. mooy king bi mooy yor xorom yi. mais yow li tax war a bëreel man su ma bëreelee rek bëreel naa Ndiaye benn la ah. Ndiaye moo njaboote ñëpp. war na sëñ Touba kii bu kin bu fi teg woon ceeb bi lépp dugg. Ah. moom mooy xorom gi. bu safulee kenn du safal. waaw moom mooy king bi Fallou Ndiaye. waaw moom moo njaboote waa làmb ñëpp la njaboote muy mbër amateur promoteur ñëpp la njaboote. waaw ñëpp la njaboote ku nekk moom mu tëgg la ñàkk la tëggee da lay woo di la conseil wala bu jegee benn problème ya da lay woo waaw dalay woo ba lii mu jën nii sax leer ma ne ni moo woowee noonu bis mi pour rafetal war na sëñ Touba kon loolu noonu ñun bu ñu gisee kuy def loolu ñun dañ ciy sawar parce que dañoo bëgg a làmba yee moom tamit mu bëgg a làmba mën naa ne moom làmba gañoo su sax lu tax ñuy wax mais bëgg-bëgg rek la ak yéen a doomu aadama yor yor alalam comprendre nga ne xaama jàppee ka ndaw réew bi yaa ku mel ni comme moom président da leen war a geesu parce que ñun ndaw ñu ñu ngi gis boppam si si mooma ah. parce que ñun tamit li nekk suñu ginnaaw waaw bare na car macha allah te moom mu si waaw te ñun buñ gisee suñu bopp rek ñoom ñoo tax ñu gis suñu bopp waaw ñun buñ jëmee kanam rek ñoom ñoo tax ñu jëm kanam sans promoteur làmb du dem parce que yaakaaroo mbër takk ngemb mbër takk ma na dem bëre gi yaakaaroo mbër defal la loolu mbër buñ ko fayul xaalis rek du bëre te ñoom ñu ñuy fay xaalis ñu ngi siy gis suñu bopp muy promoteur yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nañ bokk ndey ak baay e àdduna dara xaju fi waa làmb yëpp nañ bokk ndey ak baay waaw ñiy jiitu si làmba ñi xamal ñi mujjee si làmba dir ëllëg ñoom bu ñu fa jugee am na yeneen ñu war a ñëwaat parce que ñun dañoo bëgg a làmba te ñaan nañ yàlla bu ñu jugee si làmba làmba di dox di di rafet quoi waaw ñun loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan jël avance bébé bis bi jël avance yéen dafa mel ni yéen yéen seen yéen du demee noonu bébé bis ak jeex jàmm taxaw na. waaw loolu dafa combat bu neex la xam nga ku si neex rek ñun ñëpp ku si nekk sa gox da laa yaakaar te waroo bëre di toog wala waroo bëre di xaar di jëmale déwén waaw ay combat yu neex la te ba ji instant bi dafa saturé boo bëree toog rek ñu ngi da lay fàttewaat moo tax foog ngay bëree di bërewaat soo bëree di toog rek waa làmba da lay fàtte waaw moo tax ñuy bëree di bërewaat. waaw man samay supporter bu doon suba la dimanche sax ñoom pare nañ waaw instant yi ñoom Siteu combat bi taxaw na la ñu xaar ñu tàmbalee seen fukki dërëm 100 francs jëmale làmba jawaat par sëñ Touba naas kañ aman pour yéen doon suivre sur Kewel foo kon ni leen ko waxee dañ doon doxantu ah dañ doon doxantu tasante ak moom ñu jël ko tànc ko ah muy Siteu Ngor bu nekk xale boo xamante ne xale bu yaru boo xamante ne làmb na ko bàyyi ginnaaw il a fait ses preuves ah. ñi ko war a jël nañ ko jël ndax làmb ko ni nga wax nekkatul maa mën kii wala maa ko suñ la fayee fay la rek bëree ndax ku daan dem ku daanu xaar lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy sant gërëm rek waaw di ñaanal ñëpp rawatina ñi ma ñaanal si combat bi ma tuddee tur rek damay juum mais maa ngi ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp àdduna. waaw di ñaanal àdduna waaw di wax ne kon fëgal lambaam bi mu jëm rek di ko si ñaanal ndam bu baax la 31 décembre doomu jaamu gën waaw ñu ko si ñaanal ndam bu baax a baax waaw di wax ne mbëri Ngor yëpp daal képp ku amul combat yaa na nga am lambo ak Yoff Waxaam ñëpp Travo waaw mbër mu si nekk day bàyyi ay yitteem ñëw di ma jàppale si sama lambo yu passé di ma jàppale si côté yëpp waaw lu waaye man rek mun ma si loon jàppale kon ñëpp yaa nañ am lamb képp ku am combat yaa na am ndam waaw di wax ne jàmm rek waaw nañu wuy dañu woote jàmm quoi si réew bi jàmm rek waaw yàlla baax na quoi incha allah. la gaal la yaay gaal la yaay gaal la yaay su fooy fanaan mbër gaal la yaay gaal la